collectif Montagne 6 la jànge nek ab bu ancien élève bu école Anne Montagne A ak B amal nañu ñom nak aljuma bi de matériel didactique ak produits détergents ouverture scolaire atum 2020. alors Montagne la ben collectif bu regrouper anciens élèves Anne Montagne yu nek euh, ci euh, Sénégal ak dans la diaspora nous avons fondé il y a de cela juste trois mois alors nous avons fait l'association association nous ba pare sur euh, euh, WhatsApp et ensuite avons euh, transformé l'école li nga fait association association a nag objectif rek la am moom mooy pédagogique. lu jëm ci pédagogiquement école en montagne nous avons waxtaan qu'est-ce qu'on peut faire pour l'école

génne ñi euh, vraiment seen i weccet ah pour que ñu mën dajalé dajale vraiment euh, euh, li nga xamante mom moy contribution bi ñëw may ko école bi. lolé nak mi ngi amé ci téwayu représentant wu maire bu Anne Belair comité de gestion école yi directeur yi kat yi ak parents d'élèves yi te ñoom sax rafetlu nañu ubbi jëf. diko rafetlu ndax té slogan juñu doon wax. Euh, retour au royaume d'enfance tay dëggal deugal nañ ko ak euh, li ma gis tay ndax ay ñu nekkoon ci bërëb tok giir gu yag ñëwaat fa pour nak ñëwa ñëwa ñëwaat jo xamné ndaysanam dañ ci indi euh, matériel fourniture scolaire pour ndonga daara yi lolu vraiment dañ koy rafetlu. c'est une association ba nga xam c'est c'est une œuvre citoyenne parce que montagne la jàngee du du wax rek donc ay jëf la te jëf l'association en tant que telle tey wane na donc du coup matériel biñ fi indi pour woné né fi lañu joggé liñu xam as ci njàng ñu jangé ko fi je pense que suñu togué be ku ci nek am ci looy yëngu nga am as tuut ne ah fa ma doon jàngee kat war fa mëna mën gestu té gëstu bi du dara lu dul li am as tuut ma jël ci dara ñëw indil ko ñam fa fekk ñi samay doom ñi di samay jarbat je pense que lolu reconnaissance gënu ko reuy waaw té muy muy jëfu gor nak parce que nit amna fu muy jaar joggé fa té dootu fa dellu nit amna fu muy jaar té dootu ko dootu du ko nettali nit amna fu muy jaar té dootu ko fàttali donc ñi acte bi ñu poser tay euh, je pense que c'est un acte de grandeur gor deug momun li xam ne man jaaroon naa fii am na lu ma fa am am na lu ma fa xamee tey dem naa ba toll fi peut-être fi suma papa toll woon ma am lu ma mën ngay gestu say doom di gestu say jarbaat je pense que loolu acte gënu ko rëy. mu bokk leneen ci lu ñu ardu muy ñaax xale yi ak waajur yi ngir ñu gën a ñongal seeni taxawaay. message bi may lancé élèves yi moom mooy ne ku jàngul euh, sa tekki mën na bañ a wóor. boudé alcorane la sax nang ko jang boudé arabe la nang ko jang mais boudé français na nga jang na nga djema a euh, sori ci sa jang pour que nga meuna am njëriñ pour ce askan meuna am njëriñ pour sa waa kër am njëriñ pour sa rew donc lolu ñun si lañuy ñuy ñaax yi parce que gis nañ njëriñu jang parce que ay kat lañu tay ji suñu yenn élève yi yalla def na jang nañu ñenn ñi légui ay chef d'entreprise lañu te lolu li koy maye mom moy jang élèves yi di len wax ne tay jang rek mo fi ne te lepp ngi fi loy mi ngi fi donc tay jom la fin justifie les moyens tu veux être quelqu'un il faut se battre corps et âme di nga egg fi nga bëgg dam donc le conseil bi may joxe persévérance persévérance encore persévérance dans les études di wax parents yi aussi école bi seen école la c'est l'école de la communauté waaw di nga gis parent bu fi doomam di jàng presque pendant neuf mois du la wax ne madame bi mooy jàngal sama doom wala monsieur bi mooy jàngal sama doom léeg-léeg nga ñëw ñuy ut ci certificat de scolarité nga ne ko ban classe la ne du la ko wax waaw ku koy jàngal du la ko wax te li si gën a paradoxal mooy da ngay ñëw mën la monsieur Sow moo may jàngal te fekk madame madame Ndiaye koy jàngal

ñi bëggul jàng dañ dem belleer parce que foofu boo fa demee benn liggéey bu ndaw boo dóor ñu dóor la cent franc wala cent cinquante sa nga xaalis école bi nag amul xaalis fii njàng la ñuy joxe xel la ñuy joxe dañ la yee di la jàngal di la jox lu savoir donc loolu parents il faut ñu conscience